1974 jàpp 2024 association des juristes sénégalaises di màggal juróom fukki at yu mu yëngu ci wàllu xeex ak ak yëlefu doomu aadama juróom-ñetti njiit ya mu jot a am liggéey ak lu toll ci 300 membres 1000 parajuristes lu toll ci 70 projets ñu daal di koy doxal si seen juróom-ñeenti bureau de droit yi nga xam ne ñu ngi ko samp si lu toll si juróom-ñaari région jot nañu saytu lu ëpp 68000 dossiers tey jii nañu tollu ci xayma mu mel ni ñoom juriste yi kontaan nañu bu baax a baax ci liggéey bi ñu def. ay documents yu bari yoo xam ne wax nañu bind ko ci wolof. ndax nit yi askan yu mën a xam seen i ak seen yelleef jigéen ñi nga xam ne féete caada da leen féete gannaaw dañ seet di leen nemmeeku di leen taxaw liggéey nañu ci benn loi boo xam ne mooy daan képp koo xam ne yaa ngi dóor sa jabar wala yaa ngi koy mettital taxaw nañu aussi ci loi bu ñuy wax euh, euh, loi 2020 buy criminaliser le viol de la pédophilie wàllu alam gi waaye itam wàllu kaaraange ci bépp fànn gën koo ñoŋal mooy seeni mbébét ci at yi ñu dëgmal loole itam doonoon thème bi ñu jagleel cinquantenaire bile. ay question la yoo xamante ne dafa soxal euh, ak ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ñi waaye itam ay menaces ci sécurité publique lu ci mel ne ay cyber attaque euh, jëmale ko ci jumtukaay yu xarale yi ak tamit di leen xoxotal. juróom fukki at yoo xam ne doxal nañ ko dafa tax itam ba ñu am yeneeni défi yoo xam ne moo nekk seen kanam. bala nga ne naam ne fa fa ñu defar suñu association ba mu gën a dëgër baax na waaye dañuy yokk rek. bëgg nañ gën a taxaw ak gouvernement pour proposition yi nga xam ne yàgg nañ koo def pour texte yi mën a avancer ñu jublu ci bëgg aussi euh, jigéen ñi gën a taxaw gën a bari ci mbirum euh, politique ak lu ci mënti am ñi nga xam ne ñoo samp bile kuréel te ñu sargal leen bu baax a baax ci ndaje mi mel na ni joxe nañu secret bi nga xam ne mooy tax ba lii ñu tàmbali mu daal di wéy ku ci mel ni Suzanne Vertu Diop ay atam toll ci téeméer nekk magistrat bu jigéen bu Sénégal njëkk am waaye itam bokk si ñi sos AJS